ba mu ci lu ci masaan ñëw ñu defee ko na ko sëriñ bi bëggee sëñ Mountakha nag daf maa woon yónni ma ci sëñ Modou Xabaan dama ne ko dama bëgg ñu woote bisub jàng alxuraan nañ ko daan defee waaye nag mu ne ma neel sëñ Modou Xabaan na dëgër na jàpp na dem dana ko def niñ ko bëggee mu ne sëñ Mountakha teg ci ne ni ko taalibe yi wax ni la amee mbirum sëriñ Tuubaa mu tànk ginnaaw tànk kanam rek la xam na ne sëñ Mountakha mu ne ma neel sëñ Mountakha Bane liggéey bi day gën a jëm kanam day gën a yaatu day gën a rafet day gën a mel niñ ko bëggee rek waaye dara du ci dellu ginnaaw dara du ci yàqu lii la ma sëñ mom naa ko sëñ Mountakha Bane mu ne woon nag sëñ Mountakha Bane na xamal bokk yi taalibe yi bokki jullit yi ne daa bëgg bu ñu àggee ci altine ñu defaat ko bisub alquran mu ne lim ci jublu nag ci altine ji sëñ bi mooy bisub taxaw yow ma araf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 kon nag mbokk yi lool yi moo doon yónnitu sëriñ bi bis nañ ko waajale noonu yi jàppee ko noonu yi sëriñ xaal yi yoon wuñ ko daan doxale na ko ci doxale wat lii sëriñ bi wax nu déggandoo ko ànd ak sëriñ Modou xabaan liggéey bi xam na kat naka jekk noonu rek ma demee